seexa ma ngi nii information yu leer nañ gis nga awus kiti bi ab cagalan ko jàppee Dubaay deeraa gi mu dëkk bu fa dee day muuru di làqatu di daw nit ñi parce que duul na duulal duul mën koy wër pour kat tuunu ndayam fi mu toll nii jëkk eh, eh, jabar eh, kii far bi utiliser di ko kat di ko utiliser di ko kat gën nga koo gis daa wéet moo waral muy nekk ci Ousmane Sonko di ko saaga di saaga Macky Sall di saaga ko di APR bi soxlawul ko xamul Amadou Ba Amadou Ba xamu ko tey xamu ko suba ku jege Amadou Ba xamu ko manipulation dul kat fen kër fétiseur bu kat tuunu ndayam la di tendance nit ñi di jaxase ku kattan la fal ndayam nga yow waa Ousmane Sonko bàyyi la boo leen saagal lu leen waa kër Ousmane Sonko mosu ñaa li jënd yàlla baax na ba mosu laa boole ci Pastef dof yi rek la ci boole Ousmane Sonko nawlawu la ñi ànd ak su Ousmane Sonko nawul da xam na ne dul kat nga manipulateur ba mag nga ku katt sa lëfal ngay nga dinaan daqaar sa nday toj sa lëfal nday doxal sa nopp nday fuddal sa taatu nday karalo sa lëfal nday ma ngaay ku gën a katt lëfal ndayam awuskiti yàlla ko Amadou Ba xamul ko tey amu ko amul day duul fen rek lay men di fen duul kat bu katt tuunu ndayam la mu naan sama jëkkër jëkkër ji jabaram a ngi nii kii mooy jabaram amul jëkkër far la am ku koy kat lëfal awus kutili boo ko ubbee ay tëj xaj nañ ci mën ngaa jël bale bi nekk ci Dubaay gi yëpp roof ko fa parce que bee yaatu ko kat tuuti ndeyam la dul kat bu mag la wasalaam. yéen li leen naqari man teguma leen ko dem leen ngeen génnee li leen naqari ca kaso ba fii réew mi Sall la sant lu fi Macky Sall bëgg moo fi am lu fi Macky Sall bëggul du fi am kat leen seen ndey fëlew ba sebi kotaan duulkat yi fenkat yi tekkiwu ma dara loo leen di waxee ci man yéen kay man tiital naa leen wax dëgg yàlla bokkatuma ci yéen bëggatuma leen ay duulkat ngeen awma ci dura maa moom sama bopp wala yéen a ma moom man dama leen faale man lijjantiw ma ay abone de man lijjantiw ma bës de man li ma bëgg def loolu laay def amul mbindeef bu ma ko mën a teree def ba ma demee ba xa damaa yaakaaroon ay nit ñu baax ngeen ba ma demee ba xam na ay dulkat ngeen ay tekkatu dil ngeen ay yàqkatu der ngeen ah ay li la xeex intéressé wu leen duulalante ci seen biir moo leen intéressé te mu leen naa woon ginnaaw dem sama yoon nag àdduna mettiwul fii yàllaa fi ne man xuloo ma xeexu ma man sekkuma ak yéen xuloo parce que milliardaire du wax ak pauvre yéen ay pauvre ngeen milliardaire ya ca milliardaire ya pauvre ya ca pauvre ya daa pataa man ma pataa ñoo mën ànd nag man mënuma ànd ak ku sew Macky Sall laa mën a àndal man damaa pataa Macky Sall dafa pataa du dëgg Marème Faye Sall ay borom Dubaay maay doomam léegi li problème bi yéen kat leen seen nday fëlew Macky Sall dina yokk ceeb dina yokk diwlin ministre de la jeunesse incha allah di ci deux ans d'ici deux ans man maa koy nekk ministre de la jeunesse dinaa kat seen nday benn par benn dina leen won nan laat naka la président dañ koy respecté Macky Sall lay seen baay Macky Sall da ngeen koy respecté force ba mu dëgg seen ndey fii di ngeen jooy te man sama loxo du leen laal yéen a ngi dégg réew mi réew Macky Sall la. Amadou Ba la ne mooy teg Amadou Ba mooy borom réew mi sotti ci def ci la man parcelle laa dëkk parcelle lañ ma xamee samay mbokk parcelle lañ nekk léegi luy problème bi Amadou Ba dëkk parcelle du ma ànd ak bëgg ma bañ Amadou Ba sama mbokk la man pël damaa ñuul rek. ah nedda bandum kon awa nedda ko bandum nedda ko bandum. nee na bandum bandum bandum man pël laa ñuul rek man maay jël ñuulal di ko diwoo waaye pël laa. Macky Sall pël la Amadou Ba pël ku fi xasati Guinée dinaa kat sa ndey a ngi comprendre. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi def naa samay investigation xaw ma investigation day duul. Awuskiti waxul dëgg day fen politique de fonctionner noonu Amadou Ba xamul Awuskiti xamul ku ko jege du ko teelu Awuskiti Awuskiti day duul di fen di manipuler di leen jaxase yéen waa APR di ma tendance di tendance pël bu Sonko parce que pël bu Sonko la xulool bëgg bëgg dem ci Macky Sall pour di xeex ak pël bu Sonko loolu moo waral coow li kenn fayu ko ñàtt na kenn joxu ko sarab ndayam waa APR nan continuer di jàppale Amadou Ba ministre Amadou Ba jël réew mi awus kiti buñ ko lijjanti kenn soxlawu ko APR bu ñëwee buñ ko faale bu wul buñ ko faale amul ku muy waxal kenn amul link kenn kenn dugalu ko ci dara day duul di manipuler tas na Pastef ba nga tas ba APR kenn lijjantiwul tuur ndayem kenn lijjantiwul lëfal ndayem day duul kenn joxu ko sarab ndayem salaam salaam sama gars yi j'espère que vous allez très bien merci monsieur le ministre vraiment jot na 5 millions de francs CFA egsi na si jàmm ak salaam bu la neexoon ñu teg la ci sa post nga ne doo faale sa jeunesse doo faale jeunes yi yaa ngi jàppale jeunes yi nga xamante ne dañuy xeex pour seen réew yaa ngi encouragé ñi nga xamante ne tamit dañuy xeex pour seen pour seen réew vraiment merci beaucoup big up à toi salaamaaleykum gars ñoo ko gisandoo awuskiti nee na ministre Amadou Ba premier ministre moo jaarale ci xel mu sell cinq millions mu jox ko pour mu koy défendre mi ngi live ak no SRS di saaga Ousmane Sonko nee na mu saxam Ousmane Sonko manipulateur bu ban la Ousmane Sonko ku nangam tàndayam la waa Pastef ku nangam tàndayam la Macky Sall la tey Macky Sall la guddi waa APR lay défendre man nag Adama Boss Day Negri wax dëgg yàlla Macky Sall musuma fay dara. ku jegeeg Macky musuma fay dara dama ko doon bi jàppale di ko dimbali te yàlla tax mu tànn Amadou Ba ma ne comme que Amadou Ba la fi Macky teg naa ànd ak Amadou Ba parce que ku fi Macky teg rek moom lañ fi teg mais kom que Abdoul kat moo ñu fekk si Abdoul Kane lañ yëkkati jox ko 5 millions pour muy défendre Amadou Ba man damay jóge ci APR dem ci Ousmane Sonko xam naa loolu laay mujj def parce que awus kiti mënumaa bokk ak moom combat bi bu ñëwee ci APR di défendre ma génn APR dem ci Ousmane Sonko te. du yàq sama relation waa APR del sama papa yi sama kilifa yi sama yaay yi sama nijaay yi ak ñi ma seqal teraanga sama nit baax ñu sa relation dara du ci yàq Abdoul Kane bu fekkee ministre Amadou Ba lii la def man ma jóge ci moom bàyyi Amadou Ba bàyyi APR génn ci parce que Abdoul Kane dul na pa seef jaxase pa seef tas pa seef ba waa pa seef ko waa waa pa seef kenn nawloo wutu ko kenn nawlootu ko mu ne day ñëw ci APR bu dugg seef ci APR mooy man génn naa dem ci alaaji Ousmane Sonko lu leer laay wax Abdoul kat moom du ma bokk moom jataay man kenn fayu ma kenn joxuma dara te kenn moomu ma damay jàppale rek te yàlla tax dul kat bii ci APR mukk Ousmane Sonko rek kon